mbokk yi ñu suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar tey nag ñu ngi ah robinet naar la quartier bi tudd ci mbuur wala du noonu raay ñu ngi lay nuy di leen siyaar di nuyu internet yi suivre Leewtoo TV yëpp à travers le monde mbaa am nga jàmm sant yàlla bu baax di sant yàlla di julli ci sangu-sang yi di gërëm tamit waajur yi di gërëm soppe yi xanaa rek di am tamit euh, naxar xam nga tamit euh, barki démb sunu benn frère euh, Pape Dia nga xam ne tamit sunu xarit la Euh, ñoo defandoo presque suñu xaleel ensemble mm-hmm. nekkoon ménager Bombardier yàlla dafa dogal mu wàcc liggéey mm-hmm. donc ñu ngi koy jaal euh, Sénégal yëpp di ko jaal aussi le monde de la lutte mm-hmm. parce que moom it acteur la woon ci làmb mais nekkoon aussi koo xam ne taxawaay bi mu taxawoon macha allah rafetoon na yàlla na dajeeg ngërëmu suñu borom yàlla na ko yàlla gërëm. amiin yàlla na yàlla nangu ñaan yi barke Nabi sallallahu alayhi wasallam comme ni mu ko waxee rek Pape naa wax bi benn la mooy ku baax la. mbaax nag ku koy jaay yàlla moom bu la fayee defe naa da nga doyal yàlla na ko yàlla fay moog bépp julli bu tudd ci suuf raay ba fi muy ñëw ak ci yow nag mooy coow li ndax da ngeen a taal lool sax yàgg na ci yéen mais ren da gën a taal coow Ama Baldé Modou loo mën naa nekk mënta ne ñu ne waxtaan ngeen nag Modou ba déggoo waxtaan nag ngeen ak Ama xaalisatare déggoo ngeen Modou laay njëkk da ngeen waxtaan ak moom ba déggoo. non man nag honnêtement Babacar. loolu moom bëgguma ci yàbbi lu tax parce que xam nga euh, depuis que ñu jóge ci combat rëg-rëg ak Gris 2 dama tëddoon feebar parce que yow mii sax yëgoon nga ko bi ma jógee ci loolu aussi sant yàlla maa ngi jamono yi ci beneen activité boo xam ne sama liggéeyu bopp la nekk ci di ci yëngatu donc affaire làmb euh, jamono yii yëpp euh, dama toogoon xaw ci génni sama loxo di defaruwaat mm. parce que xam nga làmb tamit dafa bari coow te dafa am yu mu àndal donc moo tax vraiment euh, bëgguma ci woon su ma sañoon boo jógee fii nga dawal sa oto dem ba kër Luc moom mu mu mu waxtaan ci ak yow xam naa ne nii lépp lu mu la ci wax rek boo ci tegee sa loxo euh, loolu mooy am. mais boo gisee tey ma ñëw tamit pour waxtaan parce que mu ku tey bu ma ñëwee di waxtaan ak yow parce que ku ne Luc Nicolaï ne Rayba Luc Nicolaï Encom ak Rayba defe naa maanaam comme Adama ak aw ay seex lañu. maanaam lan moo tax ba mënoo cee sori wala da ngaa gëj a gisanteeg ligue wala da ngeen cee waxul wala lu xew. no dama xam nga xam nga négociation yi. Euh, ligue moom moo ci nekk. man nekkuma ci parce que man maa ngi jamono bi euh, di lijjanti beneen affaire mais xam naa ne tey ligue mooy ki gën a placé pour. Euh, expliquer parce que loo xam-xam demb ma demb gën laa xam demb je crois que noonu la ko mag ñi euh, waxee mhm. donc euh, dama bëggoon yow boo jógee fii rek boo demee ci lig dina la wax réellement lan moo xew mais nag bu fekkee ne combat Ama Baldé la ak Modou Lo nga xam ne tey demande sociale la nga xam ne tey boo wëree Sénégal ci grand place yi ci bureau yi ci marché yi ci tefes yi foo dem gars yi moom la ñuy waxtaanee li wóor wóor man xam naa ne Luc mu ngi ci combat boobu parce que bul fàtte ne c'est un homme de défi et puis nitu événementiel la nekk na nit koo xam ne depuis mu dugg ci làmb ak léegi lépp lu Sénégal soxla rek mu leer ko ne ko lii réew mi soxla na ko surtout jeunesse bi daf ciy xar tànk tubéyam mën nañ ci citer exemple yu dul jeex boo fàttale ko 21 mars 2010 diggante Modou ak ki nga xam ne mooy Balla Gaye 14 euh, mai 2005 bi muy def galaa boobu nga xam ne 6 poids lourds la ci boole woon Léopold Senghor 22 avril 2012 gis nga bi muy andi Yaxya Diop nii ak ki nga xamante ne nii mooy Balla Gaye gis nga tamit 2017 bi ñu génne diggante Gris Bordeaux Balla Gaye nga xam ne waaw Balla 2018 2017 si Balla Gaye toog na presque jóge ci deux défaites consécutives ba pare année blanche gàddaay gis nga mu indiwaat ko mu doonoon événement keroog gis nga Léopold ni mu mel donc moom nit la koo xam ne noonu la ko yàlla bindee donc ba tax na combat bii xam naa ne bon bu ci yàlla defee jàmb moom mu ngi koy taxawal te man li wóor te wóor xam naa ne moom mu ngi ci donc euh, foofu laa ci mën a yem Ama Baldé jar na cent waaw xam nga loolu dina naqaree wax tuuti parce que li tax dina naqaree wax muy nit ku nekk moom mooy xool lu nekk lim ko jaral mais boo xoolee sur le plan sportif nga xam ne Ama Baldé il est jeune nekk espoir nekk étoile montante nekk mbër moo xam ne dafa doon yaakaaru làmb euh, vraiment nga gis ko aussi li nekk ci moom. te li tax ñuy topp mbër di ko naw yëpp mu ngi ci moom macha allah kon tey su taxawee ne man lii laay bëree loolu aussi am na ci droit mais aussi promoteur bi nga xam ne moom mooy organiser moom aussi mooy xool combat boobu lan la ko jaral ak lan la ci man fay mu ngi mel ni rek affaire wu jënd ak jaay la mais man personnellement ni ma ko gisee euh, sur le plan sportif nga xam ne moom xale la euh, yàlla dafa dogal mu nekk ci làmb ji boobu ak léegi amul chance pour bëre Euh, roi des arènes euh, yàlla def aussi Modou Lo nekk mbër boo xam ne def na li mu def yëpp ba tey ñoom ñaar seen combat sës ñu war daje parce que mënatuñu bañ a bëre foog ñu bëre ak quelle soit la situation dinañu bëre pour affaire bi leer. donc comme tey agsi na te mas nañ daje mbapat ñuy wax ne daan na ko daanu ko nii la demee ne la la demee et puis ça fait presque des années mu topp ko di ko dëkk parce que maa ngi rappelé wu fii mbuur keroog kilif bi fi amoon te assurance daje ci ak Mbaye Guèye Junior. ñoom Augustin Mbagnick Sène ñu ngi ci woon keroog daf ko dëkk ba xaw nañu xeex keroog Baye Mandione moo ko récupéré moom ama donc yu mel noonu nag bu fekkee dafa am nga dem nag ba mbër mi agsi ci yow euh, timit je crois que foofu timit am na loo war man xool parce que tey amaa combat boobu même 60 millions mënu ko bëre perte ci parce que si roi des arènes lay bëril te mbër bu nekk bëgg nga nekk roi des arènes kon man su ma la déggee bu ko fayee a jël parce que couronne roi des arènes en plus moom moo doon laaj ba pare moom moo bëgg yéeg xam nga tey jii dafa am loo xam ne dafay am nit bu fekkee ne euh, parce que combat bi Ama moo ko gën a soxla ah. hmm. parce que Modou tey mën na bëre ak keneen tey Modou mu bëre ak Ama ak mu bañ bëre ak Ama loolu dérangé wu ko tey du doon nañ sax douter amateurs yi ndax dina nangu combat bi donc c'est parce que bu ko nangoo dafa xam ne léegi lii amateurs yi ñoom ñoo ko bëgg kon donc Ama tey il est obligé à ce moom mu dem bëre ji léegi nag mu ngi des ci. ndax quatre vingt millions yi jaral na ko ko nee jaralu ko ko cent millions lay réclamer promoteur bi pour l'instant mu ngi essan bàyyi taxaw ci quatre-vingts millions yi léegi nañu bàyyi avec le temps comme ça ñu xool fan la parce que lii tamit yàgg na ci làmb. waaw mais Ray fi may ñëw tamit mooy que ni est-ce que bu ñu waxee loolu que ni yow buñ ñu déggee nga wax parce que dañuy faral di dégg ñu bëri naan Modou mbëru léegi la Modou mbëru maanaam dañ leen di jiñ ne Modou seen mbër la. maanaam moo tax amaa itam comme xam ne seen mbër la moo tax moom muy laaj kase bi ko arrangé mu dadi seen mbër wala yooyu xam nga amateur yi nañu bàyyi yooyu surtout sénégalais yi parce que mbër yi euh, démb Gris Bordeaux ak ak Eumeu Sène ñoo ànd ñëw ci dëj bi ci dëju Bombardier bi ci dëju Pape Dia bi donc gis nga diw ak diw ay xarit lañ xam nga diggante Modou ak moom bu ñu waxantee dëgg kooku picc yi naaw sax xam nañ seen relation parce que loolu démb la woon ci bi dara doonul dara mais bul fàtte ne aussi année yu ñu génni Luc tëggul moodu yeneen promoteur ñoo doon tëgg Modou terewul Modou mu ngi ci doon bëri di daanu di bëre di daan loolu du dara parce que bu arbitre di siffler coow li bari na promoteurs yi nijaay yi mbokk yi xarit yi gaa ñi ñëppay arrière. ñëppay génn géew bi ñaari mbër rek a fay des ak arbit bi donc euh, diggante ay relation yooyu moom nañ ko tëggee nale te wax ci komba bi Ama Baldé doon na laaj Modou agsi na Modou nangu na bëreeg moom tàllal na ko loxo léegi mu ngi des ci diggante moom ak promoteur bi 80 millions xeeb na ko promoteur bi pour l'instant mu ngi ci 80 millions yi léegi ñu bàyyi affaire bi avec le temps parce que timit lii yàgg na am ci làmb yàgg na am ci làmb. est-ce que yéen tamit nekk ngeen di def bës parce que yéen da ngeen a taam lu mel nii bës bu bës bi yokk ngeen doog a taxawal combat bi. Ligue romb na fa. non maanaam coow ci combat bi bàyyi ci xel ngeen xëy taxawal. Euh, non Ligue sincèrement ku dee yàgg sa bàmmeel. mais Luc xam nga nit dafa am foo xam ne daf koy romb Luc def na vingt ans ci làmb lu ci gan xoolal fi mu jaar ak li mu créé malgré tous ces difficultés passées ba tey jii moom rek mu ngi nekk ci làmb koo fi gisati ci ni fi nekkoon ñu ngi fi affaire bi parce que dafa métti. dafa métti. dafa métti mais mais yi dafa métti d'accord na. li muy métti métti yëpp. il toujours là, malgré ses difficultés passées, d'œuvrer pour le développement de la lutte pour la jeunesse de notre pays, pour que lamb gën a jëm ci kanam loolu tamit bu ñu ko négliger. kon donc yooyu moom affaire buzz ak yooyu. <laughs> non maanaam pour communication combat bi laay waxee quoi. mais mais beneen bi may wax Sénégal itam di ko wax mooy que ni dañ ne prix bi buñ ne moo Moodu 150 million ne Ama 80 millions gars yi ne loolu tamit dafa sore ba mu ëpp. léegi avant may ñëw ci sa question. Balla Gaye barki démb bi mu defee deux défaites consécutives si je ne me trompe pas. dem gàddaay. Mhm. bi ñu koy boole bi ko lig di boole ak Gris Bordeaux gars yi dañ ne noo Balla c'est fini. keroog yow Léopold Senghor bi nga fa ñëwee. Mhm. gis nga fa loo xamante ne nii ci histoire làmb ma soo ko fa gis ci mbooloo. loolu gis nga yeneen combat yi fa jaaraat yëpp teg nga ci sa bët xam nga ndax benn la am du benn te boobu Balla fekk na ñu ne jeex na te Gris aussi boobu nee nañ bokkutul ci course bi. Mhm. donc loolu moom ci côté Luc. ku dee rek yàgg sa bàmmeel jagle suñu bor. làmb moom da ngeen koo man macha allah. lu moo ko binde noonu. moom nitu événement la c'est un homme yàlla dafa dogal lu mu teg loxoom rek yàlla mën na ko barkeel loolu nag mayu suñu borom la mais ci côté bi nga wax léegi. 150 millions ak 80 millions 150 millions yi. loolu aussi man bu fekkee ne am na dafay dépendre aussi ci promoteur bi ak ci mbër mi nga xam ne moo laaj cachet bi parce que dafa am ay combat yoo xam ne ni situation di demee moo tax muy taxaw. yaa ngi rappelé wu bi Mbaye Gueye ak di dajee pour la première fois di bëri un million boobu amoon na coow nit ñi naan million million million mu nekkoon buzz un peu partout ñu di ko wax te boobu ñu fi nekkoon ay alaaji Bassirou Diagne grand serigne de dakaar yàlla na ko yàlla gërëm nekkoon fi koo xamante ne nii tamit def na lu ne ci làmb bu rappelé wul ne moo tëggoon euh, nu mu tuddati Robert Moussa Diame te boobu séeréer si daawunu daji seen biir mu nekkoon benn combat boo xam ne même le président Léopold Senghor waxoon na ci pour que mbër yi bañ a bëree mais yooyu yàgg na am cachet yu liemato yàgg na am ci làmb parce que contexte actuel bi la parce que tey Modou bu ko neexoon mu ne du ma bëree ak Ama Ama moom sur le plan sportif bu mu xool lu Modou jar moom na xool après combat bi mu jëm bu ci duggee ba am ci ndam ak lu mu ko mën a andil te dafa am combat yoo xam ne nag boo ci duggee boo ko bëree ba pare dafa am lu muy maquiller ci sa palmarès surtout nag boo ci amee ndam dangay ngay nekk roi des arènes loolu nag tekkiwul ne moom jarul cent millions parce que mbër la moo xam ne aussi honnêtement ku dee yàgg sa bàmmeel tey jii soo ko tegee nii teg Modou nii Modou mënu ko ëpp ay supporters arene bi mu ngi Pikine xale yi dañuy dox ñëw xale la boo xam ne saf na amateur yi saf na waa Pikine am na mobilisation mais nag mu ngi dépendre aussi ci promoteur bi parce que moom moo yor xaalisam moo xam aussi nan lay toju bopp dina xam moo xam aussi nan lay liggéeyee. am na solo raay aussi yaakaar naa mu ngi mu ngi jàkkaarloo gars yi mais léegi léegi laay bëgg naa nag nga xool ma fii ci ba dafa am fu mu bëgg ñu ñu ñu ñu ñu dugg parce que am benn taxaw si lu ma def. xale yi maanaam bu ma nee xale yi ñu ngi tudd ay xale mën naa ne Ama Balde ne booy Niang Sa Thiès rëg-rëg ñu ñëpp guy gi Modou Anta bëri nañu Yékini Senior Garga dama gis ñu sëkkatal mag ñi Sa Thiès ki dem na ne seen la soxla Boy Niang ak Balla ñu ngi koy wax guy gi ak Gris Bordeaux tamit gi guy gi bëgg na ak maanaam xale yi lan moo tax léegi xale yi maanaam sëkkatal mag ñi lu ko waral surtout at bi am niñ mais bi làmb doonee làmb ba léegi boo visité histoire histoire sa góor gi ñoom Abdourahmane ba léegi làmb noonu lay demee ñi ci suuf toujours dañuy bëgg yéeg dem ci ñi ci kaw te tey fi làmb ji toll buñ ko waxantee ñun ñi ñëpp ay ak eh, li ko mën indiwaat dëgg-dëgg mu amaat coow mooy grand contre petit boobu ngay wax est-ce que vous savez que ne à l'époque làmb amoon na fi problème yàggul dara ba ñu jël mag ñi boole leen ak xale yi xam nga manga dafa débuté carrière am Alioune Seye daan kon dem si yàlla si yàlla ko yàlla yërëm mais bi ma nga demee ba ayle waat na ak Alioune Seye ñaari yoon mënu ko daan nga dégg Alioune Seye doon wax maa nga nekkul sama roi mais bi ñu demee ba làmb commencé am problème dañu wax ne nañ def grand contre petit Lat Sané Lang Sané nekkul woon sax et de camp maa nga susul woon ci moom parce que boobu y avait des Ibou Ndappa ak ñoom docteur Faye bu Diouroup ñu nga fa woon mais bi loolu amee dañu ko jox Alioune Seye keroog bi Alioune Seye dawee song Langsane bi mu ko daanee ci stade dafa am kenn nanguwul jóg parce que combat bi ñoom dañu léemaate woon parce que boobu Manga Alioune Seye mu ngi nekk naataangoo Manga te Langsane nekkul sax aide camp Manga donte mu ngi woon écurie séeréer ci lañ jëloon Robert 2 bu mbuur bi boole ko ak dem si yàlla si Boy Niang te ñaar ñëpp génne nañ àddina leen yàlla écurie Pikine dem écurie Fass keroog je me rappelle bien Pape Gueye ak Moustapha Gueye boobu Moustapha mu ngi nekk xale du soog a lukkeeku Iba Mar keroog ñoom ñaar ñoo indi presque booy ñang yu xeex-xeex bu yàgg Robel de mujj ko daan ci lañ jëlaat Robel jox ko Balla Gaye Balla Gaye daan ko donc grand contre petit dafa yàgg ci làmb en général mbër yi nga xam ne tey ñoo nekk ay mbër yu mag def seen temps tey xale yi ñoo leen fi war a jëlee boo rappelé woo 22 avril 2012 Balla Gaye bu muy renverser tendance bi digganteem ak Yékini mais dañu am différence d'âge xoolal en 2009 bi Balla Gaye di daje ak Moustapha Guèye Balla Gaye il est né presque en 86 pourtant 86 ci la Moustapha dugg ci làmb son premier combat donc làmb noonu la ñi ci suuf ñooy bëre ñi ci kaw ñi ci kaw nag bu ñu naxulee seen bopp dañuy def ni Bombardier def. parce que man boobu maanaam personnellement je l'ai waxtaan nañu nee na ma bëgg na rëg-rëg bëgg na Ama bëgg na booy Niang parce que xam na ne bientôt dafay génni te làmb fi mu toll nii xale yooyu agsi nañu te aussi bu ñu agsee parce que Bombardier bëri na ak alin Seye ndem si yàlla si bi muy bëreeg moom mën na ko jur bëri na ak Mor Nguer fii à Mbour donc yooyu làmb noonu la donc nu ñu bëree seen biir nañu bëri seen biir boo gisee ku mel ni Cheikh Mbaba bu Mbuur nga xam ne mbër bu mag la woon daje ak Jibi Jaañ bu gaaya bokkuñu génération maam ja maam góor gi dégg nga mu naan Jibi Jaañ ca gaaya maa ko ndax daan te Jibi Jaañ ak maam góor gi du ñu même génération parce que làmb du ak maas dabante la donc ñoom ay bal la ay Moodu dañu am courage xam ne dañ leen mayoon chance ñu daan ñoom Yékini ñoom Tapha Gueye pour dugg ci course bi ñu wàcc seen bopp bëri xale yi pour làmb ji neex te xale yi aussi toll nañ ñi ñoom waaw toll nañ ñi ñoom te aussi bu ñu nekkee ci géew imaginel tey Balla booy Niang nekk ci digg géew koo ne mooy daan danga koo faral Modou amaa balde tey bu ñu nekkee ci digg géew futteeku arbitre bi ñëpp des fa ñëpp arrière ku ci nekk ku ànd ak Balla ku ànd ak Boy Niang non pardon amaa di nga am fit amaa Ama mën na daan Modou parce que dañuy tolloo ku ànd ak Modou di nga ne Modou mën na daan Ama donc combat yi ñu ngi noonu mu ngi mel ni aussi rëg-rëg ak Bombardier bu ñu nekkee ci diggu géew bi doone Bombardier daan doone rëg-rëg mooy daan koo ne diw mooy daan donc koo faral te it nanu waxante li fi ne làmb am na problème promoteur yi mag yi fi nekkoon di investir léegi ñu ngi ci yeneen affaire di toppatoo seen yeneen liggéey tey jii ñi fi doon tëgg combat cinquante millions jëm kaw c'est le seul Luc Nicolas honnêtement bu fi taxaw malgré toutes ces difficultés passées di œuvrer pour le développement de la lutte ñi fi nekk ñëpp bu ñu waxantee dëgg ay promoteur seconde zone lañu mbëri la ñuy tëgg yoo xamante ne nii peut-être cachet yi extraordinaire wul léegi bu ñu bëggee nag parce que boobu ak léegi li koy dëggal mooy benn VIP taxawul c'est ça la vérité kon mbëri nañu ëf seen loxo wàcc seen bopp oyofal ko nangoo bëri xale yi pour làmb delluwaat ci niveau bi mu dellu woon dans peut-être cinq ci kanam parce que tamit xale yi ngay gis ñoom booy ñang ay ñoom Sa Thiès ay ñoom Ama ñoom rëg-rëg ñooñu bientôt ñooy mujj làmb ji mais beneen combat bi nga wax nag ci diggante Eumeu Sène loolu moom honnêtement gëw ma ne. Eumeu Sène Sa Thiès mënul nekk pour man waaw no je ne crois pas que ne Eumeu Sène dina daan Balla Gaye deux fois barki dem ba mu taxaw ne même 300 millions du ma dajawaat ak Balla Gaye dem de bëre ak Sa Thiès loolu. na da ngaa jàpp ne jaadu. surtout Sa Thiès jóge ci défaite boobu léegi aussi mu instant bàyyit bi ko mbër yi nañu ku nekk xam nga ki nga war a bëreel pourquoi Sa Thiès nanguwul tàll Reug Reug loo na dem bëre ji ak Yékini junior wala mu bëre ak Garga wala mu taxaw laaj Reug Reug parce que ay morom lañ mais Eumeu Sène aussi buñ ko dévaloriser ak quelle soit la situation c'était lutteur confirmé yàgg na ci làmb et puis def ay exploit un lutteur de la valeur de Balla Gaye doo ko renverser deux fois ba pare Sa Thiès jógee ci ay défaite barki dem ba di la dëkk loolu raay kontaan naa ci yow. jërëjëf maa ngi kontaan ci yow bu baax di leen ñaanal yàlla delloowaat leen ci jàmm. di kontaan aussi ci yow Babacar parce que tu es mon frère depuis Lutte TV mais yàqoo dara Ndey Kumba aussi di sama jigéen nekk moom it jigéen bu mën góor parce que tamit doon jigéen du teree am jom. di gërëm aussi lamin ak gars yi nga àndal yëpp di kontaan parce que tey monde bi dafa tuuti te lamb tey pour mu dox dans dix ans lii internet bi moo koy andiwaat place am parce que léegi. monde bi dafa changé te yéen a ngi ciy béy seen waar te ñu nekk États-Unis ñu nekk Europe ñu nekk un peu partout dans le monde namatuñu dara léegi ku daanu ci mbappat bi Fimela wala nga daanu Diouroup boo daanoo léegi balaa deux minutes nit ñi yëg ndax internet bi yooyu aussi mooy développement ñu ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf Raay waa di kontaan ci yow tamit vraiment am na solo yàgg nañ fee ñëw di leen nuyuwaat di nuyu sa soxna Filo di ko ñaanal yow moom it gi yaram mais di nuyu tamit waa Lit TV parce que ba may ñëw sa kër fii Lit TV laa fi daan ñëwee tey mu ñëw fii ci Leewtoo daje feek ñoom Beuz maa ngi koy nuyu di nuyu Mohamed Youssouf Fall yambar mi mais di nuyu nag Lamine sama xarit. moom xam nga sama seex la comme lool la sénégalais yëpp wax kon yàlla na ñëpp am jàmm di nuyu équipe Leewtoo bi yëpp yàgg maar ci caméra bi nday Kumba Fall Biram Ñëng ak moom moo maane bi nga xam ne mooy dawal di ñaan Sénégal yàlla fi yàlla def jàmm amin jërëjëf